président rek kañu ñor bu fekkee day déplacé wu foog ñu woon ko ne moom lañ àndal kon boog lépp luñ mën muy suñ coono ak suñ doole dara du ko fekkee pour ñu teeru ko ndaxte yàlla dogal na euh, responsabilité bi ñu jox ma nekk mandataire départemental kaar yaa ngi ñëw kaar yi pareegul kon boog tey Macky Sall buy ñëw fii tey journée de l'élevage mu tànn ko région de Diourbel département Mbacké Kayel bu ñëwee dañ koo war a teeru ni ñuy teeroo buur loolu moo tax nelawatuñ yaanatuñ ànd ay conseil spécial am ñom Abdou ndjay ñom Omar Sow ak momo libar bass joge ba Dakar ak l'ensemble ñep ñi nga xam ñoo joge Touba ak jeunesse yi nga xam ne ñoy and ak mom di ko guddé ak bëccëg lool mo tax tay yaakaar naa ne yeneen kaar yi bu ñëwé kenn du fi xaj mak Sall mo ñu ko jaral te dañ koy def dañ danañ dem bam jeex li ci dess dina lañ jox rendez-vous bi li jallé amna ben point conférence de presse mak bu may def pour mëna wax li nga xam mo xew ci réew mi inshallah allah. li ma la man ay pexé la am man duma blanchir duma def dara yalla dogal dama ànd ak ay kilifa. mais nak amna ay lijjanti euh, je suis un opérateur économique j'ai des relations avec les banques buma ma joxé ay caution bu ñu joxe caution ñu finance jigéen ñi ñu liggé dem fay le système bobu la ñuy liggéeyee nekkul xaalis boo xam ne état du xaalis dara dañuy dem jël caution yóbbu ko ci banque bi ñu finance yépp ñun daal pare nañ képp ko xamné da nga jappalé président Macky Sall di and ak mom lepp luñ mën ak luñ mënul daan ko def surtout ñuy yëngu ci wàllum élevage di sant bu baax le ministre de l'élevage sama ami, mon ami mom tamit comme ni nga wax sama xarit la donc gis nga comme ni ko Matar les jeunes de Kael ñun wa la père de Kael réunir wu pour accueillir son excellence monsieur Macky président de la République du Sénégal à l'occasion de cette journée de l'élevage bo journée nationale la pour tout le Sénégal. muy fête boo xamante ne c'est une fête exceptionnelle mu doon loo xamante ne initiative président Macky Sall la te sàmm yëpp askan wi yëpp ñu koy ñu koy rafetlu vraiment macha allah ñu ñëwoon ànd suñu gannaaw suñu mag. suñu responsable honorable Matar Diop ki nga xamante ne depuis toujours ñun ñooy ànd moom ci lépp lu ñuy def moom moo ñu ko jàppale vraiment ñu nit koo xamante ne dafa taaw di jàppale comme son excellence monsieur Macky Sall ci dans le département de Mbacké surtout ci commune bu Touba nga ne lii tey lu fi Mata Macky Sall am tey ginnaaw yàlla Matar Diop moo tax. Matar Diop mii nag sëñ la sëñ boo xam ne dalaa jàppale ay jigéenam Matar Diop lékku dara bàyyi ñu Matar yow moo jox ay millions ñuy liggéey ñun jigéen Touba barke Serigne Fallou parce que man joxante la fra laa wax mataa tabaski dañu koy jox màggal dañu koy jox paré dañu koy jox mataa dañu jox lépp dañu jox ay saako ceeb màggal ku nekk